bu ñu demee ba làmb mhm. bu amatee kenn du génn mhm. yenn boutique yi du ubbi mhm. ndax insécurité bu mu àndal yow nitu làmb loo noo noo gisee loolu ak loo ciy wax ji nga suba hmm. promoteur bi muy Luc Nicolaï jël na ci ay euh, disponibilité yoo xam ne bu subaa nga yéemu ci àdduna plus de mille arcades yi plus de mille gendarmes dinañu jalonné làmb ji ba nga xam ne ku amul biasa sa doo taxaw ci buntu làmb ji parce que làmb ji amateur dafa am ak amateur ñi nga amateur biasa ko mayoon billet sa dugg ci biir làmb ji parce que làmb ji intéressé wu ko intéressé mooy taxaw ci bi ngay génn mu daje yow fël sa portable wala mu amator sa portefeuille hmm. ñooñu ay amateur lañu duñu ay amateur waaw moo suba ji promoteur bi jël ci ay disponibilité li ko dalee arène national ba EDK ba lépp dañ koy jalonné li ko dalee euh, euh, la arène nationale ba ba ba ba Géejawaay dañ koy jalonné li ko dalee pikin euh, arène nationale ba buntu pikin dañ koy jalonné moo tax suba ku amul billet jarul ngay taxawaalu ci buntu làmb ji parce que kuñ ci jàpp itam dañ lay duma mën nañ la cee tëj sa àddina yàqu te bés xale def jéeya ñu woo mbër mi ne kii sa supporter la mu ne la xaw ma ko parce que mbër mi du xam mbër. Euh, euh, supporter mënoo xam ñëpp sax. mënoo xam sa supporter yëpp. Hmm. nit ki mën naa sol t-shirt Modou Lo tey ah dikk def jéeya ñu ñu ñu jàpp ko woo Modou ne xamuma ko mën ngaa sol t-shirt euh, Ama Baldé def jéeya ñu ñu jàpp la Ama ne xawma ko moo tax xale yi nañu def attention mbër yi ñooy encaisser seen xaalis. te yi nañ dalal seen xel liy dalal seen xel mooy nañu fexey supporter ki ñuy supporter ci jàmm ñu mu daan wala mu daanu ñu ñibbi ci jàmm lamb avancé parce que lamb tey ku ne un million keroog ba ko mbéy gee jëkkee laaj commenté nañ ko pendant trois mois naan million tey dañ di laaj cent million ah kon lamb bu man mën naa dem ba nekk cinq millions wala un milliard hmm. comme na boxe de demee États-Unis mais ci kaw nag ñu toilette ko buñ ko taqal buñ ko tirimale rek lamb mën na fay doxee yàqu te bu ñu lamb mari dal lay don. parce que ponkal moo xam ne entraîné nga ba fees bëgg yàpp bëgg xaalis bëgg jongoma amul xaalis di nga Hmm. waaw moo tax nañu def attention xale yi euh, euh, mbër yi ñoo war a wax ak seeni supporter képp ku may supporter parce que loolu war nay am ci face à face yi képp ku may supporter mbër mi bu waxee ne ku may supporter na indi jàmm ku indi ay nag bañu ñu téye sama yoon new ci kon supporter yu bari dinañu lem seen kër